fas yéene dikk ak yéen ci seen xikmatul yawmi bi ñu leen baaxoo ànjil bis bu nekk ci kàttanul yàlla ak ndimbalam ak tawfiixam seen mbokk saalixu si da leen ko defal tey ñu fas yéene àndil xikma bu amati solo ti mooy wéyale solo si julli mbokki julli julli lu ama am solo la ci ab jullit ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na ku ko laaj ne ko lu gën ci jëf yi mu ne ko julli ca waxtu wa afdalul amali asalaatu fi waqtiha daal ko ci tegal na ko nag mooy frontière bi dox diggante gëm ak weddi moom julli wa tuxaddul xaddal faasila bayna imaani wal kufr daal na diggante jaam bi diggante nit ki ak bokkaale yàlla ak weddi mooy bàyyi julli inna bayna rajuli wa bayna shirki wal kufri tarku salaa julli mooy li gën a màgg ci liy jokkale diggante jaam bi ak boroomam wa hiya min acxami alwasaili allati tuqarribu al abda ila rabbihi sulfa moo tax nit ki bu fonkee julli si di ko def nam waree day mucc dañ koy musal ci mboolem muy def ay ñaawteef ndax xolam day leer day set digganteem ak boroomam am na ci jamono yonante bi xale boo xam ne ni dara daf daan def ay ñaawteef biñ ko booleeg yonante bi yonante bi ne ko ndax ma la déggalee da nga def mu ne ko waaw mu ne ko deel julli waxtu yu juróom ca seeni waxtu ba mu ko tàmbalee diir bu néew yam daan def yëpp ca la ko bàyyi kon loolu mooy la alxuraan wax ne inna salaata tanha anil fahshaa'i wal munkar julli itam dafay dindi stress maanaam ak jaaxle ak euh, conscience bu tranquille julli daf koy dindil ab jullit boo xam ne ni mos na neexiitu julli moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu mosaana am jafe comme lii dal ñëpp bu ko dalee ndax moom alxuraan kat nee na xul innama ana basharum bind rek dama damay wax waaye nag mbindeef laa ni yéen kon bu mosaana am jafe-jafe àdduna ni ko ñëpp yi amee danaan yaa bilaal qum fa bi solaa bilaal jógal nga noppal ñu ci julli bu ko defee bilaal daal di jóg woote julli moo tax julli lu ama am solo la julli mooy li nga xam ne nii bu ëllëgee buñ xisaabee moom la ñu njëkk a xool ci jaam bi buñ ko xoolee bu baaxee lépp baax bu baaxul dara du baax waaw awwalu maa yuxaasabu alayhi al-abda as-salaa bu ñëwee ci sunu waaja nag Sëriñ Tuubaa ak julli moom day loo xam ne nii ku ci doon wax dëkkee ci def xikma itam du jeex ndax sëñ Tuubaa ku na xam ne ne eh, fonk julli tax na barab yi ñu koy màggalal yëpp ngir dafa julli woon du julli farata yu ci bari julli sunna la kon naka julli faratay nag nu meloon mu ñaar rakkay ndar ak ak yu bare bare eh, sëriñ Tuubaa itam fonk julleem tax na eh, nettali boobu ñuy nettali nga xam ne jolof la amoo woon ci ci yenn jolof ba julli jotee te yenn yenn ci taalibe yi doon ko sàkketal julli jot ñuy wéy bàyyiwuñu sàkket ba mu noppee daf leen a laaj ba ñuy nodd fuñ fuñ tolloon ñu wax ko mënoon nañ ko dindi te dem julli ji ne leen bu ñu xasee nodd lu dul julli daganut daana waxit na it na fonk julli bu baax ndax bu ëllëgee fa ñuy dekkee ak pénc ma euh, doxub juróomi téeméeri at la te it boobaa kenn ku nekk sa leerug julli moo lay yóbbu ah, Sëriñ Tuubaa itam julli tax na euh, dégg naa ci sëriñ Abdul Ahad mu sëñ Abibu mu ne dégg na ko ci sëñ Abibu way juram sëñ Abibu Mbàkke mu nettali ko ne ko fekkee na bi sëriñ bi di tàngal warga ataaya ba ñu noddee dafa bàyyi baraada ba mu dal di daanu bañ julli jee ba jëw mu ne li ma def ne xanaa niru na leen xaw naa niru yàq ñu ne ko ah, waaye mbàkk yow de doo mu ne damaa xam ne bi noddee bu ma wéyoon di xelli day doon jëfi bakkan bu ma doon day naagalit di jekk-jekkal di teg baraada bi day day doon yéexe waxtu suñ borom ne leen xanaa xamul leen nodd ñaari baat rek la muy allahu akbar ak laa ilaha illallah allahu akbar mooy lu mu la lu mu la mën a fekk boo ko déggee lu mu la mën a fekk lu mu ñor-ñor ak lu mu far-far lu gën a ñor gën koo far taxaw na kon bàyyee ko te dem defi ko laa ilaha laa mooy a ah, boo julli ji wut foo mën a jëm doo dajeeg li nga bëgg ndax la ngay wut lépp ma nga ca julli kon julli moom kenn waru koo woyofal waaye rawatina ab taalibe kon nañ ko fonk bu baax a baax julli tax na sëriñ Tuubaa euh, génne na nit këram ngir loolu jànnin na ci ay nit delloo na ci luñ ko joxoon ngir bañ a julli kon kooku fa mu tegoon julli euh, fu kawe kawe la kon nag nañ ko fonk ñun tamit euh, ñoo ngi sant ñëpp nag di leen gërëm di soññaat suñu mbokki jullit yëpp ak mbokki taalibe yëpp ñu jàppale ñu ci liggéey bi ñuy liggéeyal Sëriñ Tuubaa ñun waa xikmatul yawmi